coordinateur tan ga ata garida nene uh, eh, a yoon fa lamine sen euh ordi ten ref naga kan a nderala uh, a eh, roku locaste verte ne tan ref nene mais koy ordi o xena o xena mom ngeen gis nonu mo ordinateur waaw ya. orde ngok galla cheikh yere ci jamm ba bege na len de yene ci jamm jaajeuf wa gis nga comme ni ngay tourner rek daaw ñu décoré la ren ñu décoré la koy yëgee. waaw sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. Mm. waaw di leen bëggee. Ah. Cheikh mm. bëgg naa la. waaw ordi i layna séeréer. waaw fogaam ke jeg na meen xane o gar fagun faak. ɓaato mhm. dakwiid men ren. Mhm. kaaga nama fi'kaa. Mhm. waaw sant yàlla xëy eh, sant yàlla a paax a paax roog fi'un quoi kiin moom sabab la xa waago rek ndaa roog dogala. ingeɗa rek bo ne roga na fagun faak faren ta dogal tin na me i ra aha to simna fop aussi ngidma fop aussi we programme wona aussi tam voilà in woy ndafetloxa paax itam ina quoi djega solo djega solo trop aha supporter ke ando wex supporter ang o leya den xare wa ziar aden rek ziar aden rek supporter ke mom anda dañuy njëgu waaw dañuy mbége a saasu ne quoi waaw no moom roog jegu ndamit den quoi côté fop ziare ama den den fop fop waaw a a wene moom wiin we so tulta moom refa denum refta wa denum yoonta waaw den ndefa grand es côté ke fop quoi feet fee lamb Sénégal waaga lay lay ten feet fee waaw feet fee comme ne layo nga rek santo ya loxe rek waaw bon xedana den axlu lamb waaw programme ne den roga mbisin ma kawe sax njorto den quoi waaw vraiment ke dem ya moso trop a moso trop a figa ngor ke yoontuma koy fop waaw <laughs> Maysa salopard Lamine <laughs> oui waaw bëgg naa ma euh, nuyu maa fay Seex euh, tey nga ci feetu axlu làmb Sénégal loo ñu mën a wax ci loolu waaw di nuyu ñi ma fekk yëpp di la nuyu di ko rafetlu parce que lii moom initiative bu nice de quoi di kontaan si teew fi parce que tey dañoo war a décorer xam nga ñu ci contane di ñaan yalla yalla bu mu fi yam yalla na continuer di doon ay ati ati at contane nañ bu baax. léegi ñu nga nekk ci métier bo xamné ci ni bari bëri na ñoo xam ne si nañ ko am na ño xamné neexu leen té nga nekk ci yow di dóor sa euh bañ lay décorer lool nan la def. waaw sante yalla rek parce que nak lamu mo nekk métier bu nga xamné dafa metti bo si nekké say mbokk dañ lay yërëm dañ lay ñewantal ku la bëgg ku ne du bëgg nga nekk ci parce que coono yi ci daj motax mais mbirum góor la dal xanaa nit ñu si nekk xam nga ñoo ngi si yëg suñ bopp bu baax a baax eh, ñoo ngi si yëg suñ bopp di ñaan yàlla suñu am di jàmm yàlla nañu yokk ñaan xam nga bañ doon roi des arènes moom rek lañ bëgg a doon instant bi oui parce que bu dee mbapat moom ñoo ngi ciy bay suñu waar ba tax na daal sant yàlla daal comme niñ koy waxee chaque jour sant yàlla bu baax. kon suñ la déggee sa biir wax yaa ngi waajal arène. waa arène bi maa ngi siy waaj du dama see commencé pour waaj mais yàgg naa see waaj parce am naa huit combats arène huit victoire oui mosuma see am défaite di ñaan yalla mu jëm kanam. hmm jajeufal nañ la ak lu am Sénégal loo wax. ma ngi leen nuyu ñom ñep di nuyu président Pythagore euh, ak Alfali ñi nek ak lu am Sénégal yëpp ngi leen nuyu di nuyu ñima andal ñom cheikh ñom Omar Sy ñom dam ay Mamour ñom ñep ma ngi leen nuyu di nuyu sama benn mag bu nek ak lu am Sénégal Ndawa sama mag la ñoo bokk nday ak ba ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu kep ku yow ahlu làmb Sénégal yow tamit di la ñaanal jamm di ñaan yalla sa télé bi yalla na dem ba nek télé bu mag oui kontaan nañ si li ngay liggéey daal. loolu jotaay bi di féliciter une fois de plus ak lamb Sénégal. mais ñu ngi lay félicité yow tamit si li nga xam ni moom lañ la jagleel euh, bërki démboo Njaay bu yàggul ñu ngi la siy félicité di la kontaane tey nan nga ñu ko mën a waxee biñ la faree lool nan nga ko dundee ak lan nga ñu mën a wax tamit si CNG bi tey jii. waaw mbégte bu rëy lañ ko dundee mbégte bu rëy a rëy e, balaa loolu ma sant gërëm bu baax a baax samay waajur e, sant yàlla bu baax a baax également e, sant gërëm également ñëpp ñu nekk si làmb ji que muy département de Mbour muy région de Thiès. parce que vraiment lire pour bu département de Mboula d'abord nous avons gis gungé ma tette ma ba que Thiès gis ma tamit gungé ma euh, euh, national donc euh, fort également pour mais également di également parce que nous suis des milliers de sénégalais. nga mu bokk si ñi mujjee ñëw si milieu de la lute par exemple euh, yàlla def bu ñuy tànn parmi les dix boole la si cité la si kooku da sant yàlla bu baax bu baax a baax sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo la dooleel kàttanal la ba nga egsi fii tay ji ni lolou nga sante ñëpp gërëm ñëpp mais tamit dañ na lamu mbuur ba nga ci nekké ba tay amul tank ginaaw tank kanam la kon lepp luñ la tàmb lu nekk ñun wa mbuur surtout man à personne man dama nan félicitations à Maïssa mais tay ji Maïssa dafa ñëwoon si galu dofi ba tay ji muy chaque jour mom amul reculé day gëna xoss rek ta dañu galu dof la dugg. waaw ma ngi rappelé wu sama première phrase ndaysan Euh, c'est l'occasion ma incliné wu tamit devant le, la mémoire sama xayit bi nga xamni ni moo ci dugal si pour la première fois muy banu Fall Sène

mais bama ma ba seetaan xool cadre bi xool situation bi la ne ah non li nekkate du yëfi dof luñu xamul la donc si le virus bi euh ñu ci dem di dem en tant que promoteur di dem en tant que président CDG Bumbu Mbour di dem en tant que président CSG bu Thiès ba tay yalla def li donc vraiment dal yoon la euh, yoon la buñu top euh ñàkkul nak yalla ni la ko doo mais yoon la buñu top, diko di ci sante yalla bu baax ba té comme limay wax nak yang may sante mais mané damay sante ñi nga xam ni tax ñu may sante tay muy vraiment waa population Mbour muy la population région de Thiès sincèrement équipe yi ma do andal di liggéey do si xam kan moy ki kan ké euh, vraiment c'était une équipe au complet on se complétait mutuellement ku si nekk secteur bi nga euh, fay bu fa naroon am jóge fa kenet ki féete benet secteur bi dina ñëw solutioner fay bo problème do am donc loolu dal mo waral euh, récompense yi ñuy sant tout le monde di remercier vraiment tout le monde. mais mën nañoo xam tam si CNG bees bi en tant que vice président premier vice président chargé de la texte yi nga xam ne ñoo nekk si làmb ñu changer ko wala dañuy continuer texte yooyu. non mënuñoo changé texte yi xala jubbanti ko wala gën ko def rat xeyna amna lo xamni biñ koy bind en telle année looloo nekkoon contexte bi.

une fois que ñu définir ko nag mu des li gën a am solo et loolooy catu làmb mu des li gën a am solo muy nit ñi xam ko comprendre ko noonu nangoo ko noonu tamit. mais gars yi nee nañ tamit euh, ministre des sports daa def li ko neex ndaxte euh, bi mu consulter gars yi ñun moom wàllu simple sax du dina kaas consulter wuñ kenn du bokk si du simple mais tamit en ñu ni tey bu fi jëlee Alioune Sarr ñëw teg ay poulain Alioune mel na ne Alioune Sarr moo ko Je ne nga pas lan bëgg quelqu'un d'autre simplement le fait que euh, le fait que poulain à' l'une donc je vraiment j'aurais compris ñu euh, parce que lui, qui parce que les mais qui parce que simplement poulain à l'une salle au contraire Alioune Sarr tant qu'il vivra ñu ngi ñaan yàlla mu gën a gudd fan lool làmb daf ko soxla duñ jël ku def vingt six ans si làmb mu dem di noppaliku ji nga jël expérience am ak xam-xam yu yónni ko soxla wuñ ko teg ko de côté kon defe naa même bu dee du woon ay poulain Alioune Sarr la personne X bu mu mënti doon le mu woon njëkk a def mooy jël Alioune sa teg ko si côté def ko conseiller spécial parce que 26 ans du caaxaan ku la jiitu si benn mbir pendant 26 ans lu mu tuuti tuuti moo la ëpp xam-xam lu mu tuuti tuuti lépp lu mu wax foofu alxuraan la. jërëjëf Ndao et félicitations à Akhlu Lamb Sénégal.